إن ابن عبد الله فاق كل من هبنا ويبدي خالق سمن إن ابن عبد الله فاق salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi nee ñu leen di nuyu. te di baalu àq ñëpp. te di baalu àq ñëpp. te di leen baalu àq. te di leen baalu àq itam. tey sàkku ci suñu borom ji mu boole jégal ñëpp rek. tey sàkku ci suñu borom it mu boole jégal ñun ñëpp. waaw ci ci ku ne ni ko baax a defee rek. ci ni ko baax ñu ngi ñu ngi ñu nuyoo ñu julli yëpp. mel mu ne mi ngi nuyu yëpp. jiital ci suñu kilifa sëriñ Mountakha. na di jiital suñu kilifa sëriñ Mouhamadul Mountakha. tekki sëriñ Abul Baraka. ak ak rek mboolem mboolem yoonu murid yëpp rek. ak yoonu murid yëpp rek jullit yëpp. Sénégal ci ci àdduna bi yëpp. ci rek. di ndokkeel ci bis bi. nee na ngi leen di ndokkeel ci bis bii. te ni ko ni ko ko ni ko xamee rek bis bi moom ko bokk na li ko waral. bis bi nee na xam bokk na ci li moom li ci mën a jàngate. ci li ci mën a jàngate. moo di ak dëggu. waaw te te woo dëggu moom suñu ko waxee ci wolof rek dana yomb firi nee na dëggu nag buñ ko waxee ci olof dana yomb a firi. ndax dañ ñuy ndax dëggu mooy koo xam ne kii la ngay wootee mu ne ci yow rek. te dëggu nag moo moo xam moo xam ne koo xam ne kii la ngay wax rek mu ngi ci yow te nga di ko jëfee loolu mooy dëggu. waaw ni ñu ko gisee ci Ibrahima Ibrahima rek. ni ñu ko gisee ci sunu maam mi waral bis bii rek. ak doom ji. ak doom ji Ismaayil. ak soxna sax. ak soxnaam. ndax bi yàlla leen yàlla waxee ndigal la tegu ci baat. ndax bi leen yàlla waxee ndigal dañ ko daal def tegu ci benn baat. loolu lay tegtal ne kon ñoom la ñu ñu dëggu lañ. loolu li muy tegtal mooy ñoom ñu dëggu lañ. na nekkuñ di di di di werante di di di di ndigal. nekkuñ di werante wala ñuy def leneen lu dul dëgg lu dëgg rek lañ nekk. kon nag loolu war a ñu ci war a jàngate mooy roy roy ci loolu. kon loolu li ci war a jàngate rek mooy di ko roy bu baax a baax. ci ci loolu ci dëggu. ci dëggu. fu ñu toll daal nañ ne suñu roy suñu kilifa sax da doy duñ juum. nee na su royee suñu kilifa yi suñu kanam rek duñu juum mukk. ndax ñoom ñu ngi ci loolu ñu ngi ci loolu. ndax ñoom ñu ngi ci loolu toujours. waaw ndax euh, wolof dane de wolof dane nit ki lu ñu woowee lu mu wooyee du koy du koy niru olof na nit ki lu muy lu muy wuyoo du koy niru te mooy mooy rek loolu mooy dëggu mooy dëggu te te ñu moytu ay ca ñu moytu euh, ci euh, ta caaxaan ak tappale sëriñ bi naan nanu moytu caaxaan ak tappale bu baax a baax tappale ndax xam nañu ñu yi yii bari na fi ndax xam na ne jamono yi kat tappale bari na fi lool bari na ci ci ci ci ci ci ñi nga xam ne diine diine la ñu wuyoo ci bari na ci ñuy wuyoo diine ak ñi nga xam ne àdduna lañ jiital ak ñi jiital ñoom itam mais bari na tappale bari seen diggante ñoom ñëpp toppal na xëy na jër ñu koy firi yi ñëpp xam ne war nañu xam lu leen toppale sax daanaka jarul ñu xam nañ lan mooy toppale waaw jërëjëf ñu koy ñu koy faram lii mooy lii ndax xëy na ko dee faram sax dina am ñu ci seen bopp te loolu tax ñu war ñu nañ leeral ñu war ñu ñaan yàlla daal boole dëggu ñu ñaan yàlla boole ñu dëggu rek te ba ba ci mooy ba ci ay tappale ak caaxaan. te moytu ay tappale ak caaxaan. ni ñu ko waxee nag. ni ko waxee. ñoo nag mucc ci ñoom dafa jafe. dafa jafe. mucc ñoom jafe na lool. mucc ñoom jafe na lool. mooy tappalekat yi. mooy tappalekat yi. moo xam ci diine ji la wala ci wàllu adduna bi. moo xam ci diine la wala ci adduna. waaye nag bokk na ci li saw sawlu rek dañuy sawlu rek bu ci ñoom waaw ñoom loolu dañu ak sawlu rek la ci ñoom nee na ñun laa ñun ñu nga xam dañu bëgg a dëggal waaw ñun ñi nga xam ne bëgg a dëggal ne nañ sawlu mucc ci ñoom nan sawlu ñun te mucc ñu jéem mucc ñoom rek ñi mucc ci ñoom nag moo di waaw ñi mucc ñoom moo di bu dee bu dee wàllu diina ji la. bu dee wàllu diina ji la. nañ fexe ba xam suñu farata ñun. nañ fexe ba xam suñu farata ñun. ba luñ ci yokk nag da da gën a tax mu gën a baax. luñ ci yokk rek day day gën a baax waaye nan xam suñu diine rek. su boobaa da nax da da jafe lool. su boobaa nax nu ci diine ji du yomb. waaw naka dama su fekkee wàllu adduna bi la. su fekkee wàllu adduna bi la nag. ñi nga xam ne ñoom adduna lañ jiital. ñi nga xam ne adduna rek lañ jiital. Euh, ngir mucc ñoom. ñoom. ngir mucc ñoom. ngir mucc ñoom. seen pexe waaw seen di pexe. ñun nañ nañ fexe ba ba ba yëngu ci dara ñun ñëpp. nanu fexe bay yëngu ci dara ñun ñëpp nag. moo di am lu ñu suturloo. mooy am lu ñu suturloo baax. bu ñu xeeb kenn ku ne fa nga toll rek nga ja nga nga nga sawlu. bu ñu xeeb kenn kenn ku nekk fa mu toll rek na baax a baax. fas yéene am lu lu dund lu dundale. lu dundale sa bopp fas yéene am lu dundale sa bopp. ak sa njaboot ak sa njaboot. yi. su boobaa nit yi yi. xëy na seen da nga mu seen pexe yi duñu a jëc ci yoon lu bari. dara waa ah, eh, te loolu jàpp nañu mooy jikkoy taalibe ne mooy jikkoy taalibe moo di jaamu yàlla ak liggéey yooyu ku ci sax rek yooyu ku ci sax rek pexey tapalekat yi pexey eh, tapalekat yi da ci mën a mucc yaakaar naa ci mën a mucc bu baax a baax waaw ah, kon xam na ne waxtaan tey woom dañ ko xaw a gàttal ndax waxtu yu xat waaw naa waxtaan tey dañ koy xaw a gàttal ndax waxtu dafa xat lool ndax bëgg nañ teel a ñëw sax waaye ah. yitte yi waaw waaw bëgg nañu ci waaye yitte dafa bari soo dee a jublu ci ci gàtt bi ah, waaw a jublu ci gàtt bi ak yeneen ak yeneen moo tax day day ah. gàtt wax day gàtt ñu tënk foofu rek tënk foofu ndax tënk foofu rek ndax wax jooju am lu bari lamboo waaw wax ci amu am kii man man wax ji wax ji lamoon lu bari bari tappale moom yàlla ci lu bari bari bari na ko hmm. xëy waaw ndax euh, tappale daal jamono mooy bëgg mooy ba yàq jamono fi mu toll ndax tappale mooy li xam ne mooy yàq jamono ji léegi ndax da dañ dañ am na ñoo xam ne dañ ko dañ ko euh, dañ ko jéem a nos ba fi ne ba doy na waar fi ne doo xamee sax am na ci yoo xam ne dañ ko nos ba xam ne fii ne sax na waar lool doo xam ne sax ay tappale la ne doo xam ne sax ay tappale la moom waaw ah, <laughs> kon ginnaaw loolu kon ginnaaw <laughs> loolu kon kon ñi ñi ngi euh, dellu ci rek kon ñu ngi jël jàll baax a baax. te tey jaal suñu bopp di leen ko jaal di leen jaal. waaw di leen di jaal suñu bopp di leen jaal. suñu mbokk mu baax fi jóge fan yi yàggul. suñu mbokk mu baax mi fi jóge fan yi muy sëñ Mamour Mbacke muy sëriñ Mamour Mbacke yal na ko yàlla doolu yërmaane yal na ko yàlla doolu yërmaane te ak maamam ak ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisale te ca yal na ko yàlla na ko a fekk ñun te ñun it yàlla ko yàlla a fekk waaw di xam daal ku baax la woon toogal la ku baax la woon lépp ñëpp seet lañ ci moom lañ seet ci moom loolu dëgg la ku baax la woon ñëpp seet lañ ci moom loolu loolu dëgg la alxuraan bi dénkoon alxuraan rek la te te loolu ñu ñu bari am nañ seere bu bu ñu ciy def te loolu ñu bari am nañ seere bu bari moo di eh, biñ ko sëriñ bi dénkee ji waaw bi ko sëñ ko sëñ na lu mu def. a def. moo di wàcc ñetti fan. wàccee kaamil ñetti fan. waaw loolu yàlla dogal man am naa ci am naa ci taktal yu leer. yàlla dogal na man am naa ci taktal yu ma leer. ndax dama dafa benn bis ñu waxtaan ma moom. na benn bis ma ma ak moom. waaw sëñ bi ak sëñ Mamor. foofu yàlla dogal ñu ñu mu xam xam mu xam ne daal man man fo man fo maa maa ngi doon def loolu jamono yooyu. mu xam ne ngi doon def loolu jamono yooyu. fa fa mooy mu xam ne moom xamal ne ma. mu xamal ne ma. Euh, suñ suñu benn mbokk ci ñër suñu rakk moom it moom dëkk moom lay def noonu. suñ benn rakk moom it mu jox suñu seexu naa. mu Seexu naa. moom. waaw tudd. waaw nga xam kon yàlla na ñu ñett daal ñoo ñoo ñoo ñoo ci ñoo ci daje. ñoo ci daje ñoom ñett kon ñoo daje ci loolu. def di def ñett ñaar fukki bis ñaar fukki isib ci bis. bis bu ne ñett fan yi ñu wàcce bi. ñett fan nga wàcce kaamil. léegi nag sëñ Mamor ni ma. sëñ Fallou. sëñ Fallou. dafa waxtaan ak sëñ sëñ Bay Sall. dafa waxtaan ak sëñ Bay Sall. ni ko dama bëgg. ne ko damaa bëgg. ñuy ñuy wàcce kaamil bi ak ñu wàcce kaamil bi ak yow. mu wàccee bi. mu wàcce xaaj bi nga wàcce xaaj bi. nga wàcce xaaj ñu def ko àddee Sëñ Tuubaa. ñu def ko àddee Sëñ Tuubaa. na ko moog sëñ Bay Sall. ne ko sëñ Fallou saxoon ko ak sëñ Bay Sall. mu ni ma kon loo gannaaw ñoom ñoo loolu sëñ Fallou noonu defoon te muy suñu sëriñ. gannaaw nag sëriñ Fallou noonu gannaaw moom man maa maa maa suñu sëriñ maa ko yokk nag man. xëy ma loo waxoon rek waaw. mu ne gannaaw suñu fàllu la noonu noonu noonu defoon. waaw ah, gannaaw suñu fàllu moom noonu la defoon. kon kon ñun ñu ñett ñun ñii. ñun ñett ñii it kon. nañ ko saxoo. nañ ko saxoo. Ah, di di ko def addiya waaw. te la yàlla dogal daal dimbali woon ah, dogal na dimbali ñett ñett ñu ngi ko dugal ba toogal. waaw jërëjëf ñoom ñett ñëpp it nag ci loolu lañ saxoon di ko def. te fu yàlla dogal fu mu jàng gisante rek. waaw ne ne fu ñu gisante rek. daañu kenn ku ne sànni soñ ci sa naka loolu gannaaw loolu tamit. gannaaw loolu tamit. Ah, lu am benn boobu daje bu ñu dewaat ci alxuraan boobu nag naka noonu. na beneen daje bu ñu daje ci alxuraan naka noonu. moo di bis bi ñuy teg xeer xeeru jàngukaay bi suñ suñu taxawal nii. bis bi ñuy teg xeeru jàngukaay bi suñ mun taxaa taxawal. yàlla dogal na ba may dem ci ndaje ba ñuy dem ca ndaje ma. ah yàlla dogal ma ma ma ma ba yeggee rek. ñu ne yàlla ma duggee ma duggee ci ci ci barab ba rek. ñu ne moom Serigne Moodu ba mu duggee ci barab bi rek. ba ba fa jàng fa jàng alxuraan yi nekk. ba jublu fa jàngat alxuraan nekk. far ma gis Serigne Mamor. far mu gis foofu sëñ Mamor sëñ Mamor mu gis ko mu gis ko mu fay mu mu fay mu jëm fa sëñ Mamor moom mu gis ko mu jëm fa boobu sax xamul fa la jëm nee na sax moom maanaam xam nga dañuy yooyu dañaar suñ def dañuy dañuy wàccee kaamil def ko def ko ñaan ko waaw nan la woon ñaar suñ koy def dañuy wàcce hmm. kaamil ni door a def ñaan gi ndeke dëkk sëñ bi foofu ndeke man bi foofu la jëm ndeke sëñ bi foofu la jëm man xamuma ko woon ko woon nee na moom ndax man dama def rek mhm. niñ baaxoo ci yoon murit ne dama dafa defe demoon li li moo di boo boo dee jëmee ci barab. moo boo jëmee ci barab. ba gis sa kilifa. ba gis sa kilifa. da ngay topp ci ginnaawam rek. da ngay topp rek ci de de jëmatoo yow daal jëmatoo fenn. mu ngay mel ni jëmatoo fenn rek topp sa ginnaaw sëriñ rek. ma ma man noonu la defoon. noonu la defoon moom. fa yàlla dogal ndekke moom fa ñu wàcce kaamil. ndekete nag ñu ànd foofa. naka noonu ñu ànd foofa. ba. barkeelu ci kaamil ba. barkeelu ci kaamil ba. jóge fa jóge fa. dem barkeelu ca xasida ya. dem barkeelu ca xasida ya. gannaaw lool nag gannaaw gannaaw ba loolu bañ jógee foofu nag. gannaaw bañ jógee foofa nag. ci lañ nag do do nag dem jublu ci liggéey ba. ci lañ door a dem ci liggéey ba. waaw du moom de de ko siyaare sëñ bi ak teg xeer yi mu noonu. ko siyaare waa def yi ñu waroon a daal. waaw loolu loolu nag tam di moo di seere bu mu ak it waaw. ne noonu tax mu wax ko mooy seere bi nga xam ne moom la indi ci Maam moo tax mu wax lu ko leeral loo xam de. waaw eh, ñëpp dañuy xam ne kon moo tax mu wax ko. Ah, ak it nag loolu tamit loolu tamit euh, dana tax ñu xam tamit euh, ndaje moom la ma fa yóbbuwoon moo di moo di moo di am daal lu fi xewoon loo xam ni loolu moo ko waraloon. ñu xam ko dëgg na dana tax nit ñi xam ne ndaje moom la leen fa jëmale woon kon dafa am lu taxoon. waaw loolu mooy mooy mooy loolu rek fa moo di barkeel ci ci njàngam rek. barkeel ci njàngam waaw. ak xasida yi rek. waaye waaye du leneen. kon xanaa um, waxtaan wi ñu yemale ko foofu rek. waaw kon ñu yemale ko foofu di ñaan di ñaan di jéggi xewal. sëriñ ñoo nga yàgg fi lool. Mbacke amiin amiin amiin lii kat jafe na. tookal tookal lii am jafe na am war ngaa sant. jërëjëf te ñaan. alhamdulilah noo ngi nga yàgg noo ñaan nga yàgg fi. yàgg noo taxaw. amiin amiin te yàlla man loolu ko ba saa su koy defee. kon ñu jóg ñu wut kii bi waaw waaw waaw